oh inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ñu ñaanal suñu frère suñu xarit ko nga xamante ni yàgg na bégal askan wi mu nekk Abdoulaye Ndiaye yal na ko yàlla yërëm te xaree ko aljana ci dërëjey Seyduna Muhammad mu ngi koy jaale ay mboqam yépp di leen ko mastawu aussi oh inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ñu ñaanal sumu frère sunu xarit ko nga xamante ni yàgg na bégal askan wi mu nekk Abdoulaye Ndiaye yal na ko yàlla yërëm te ko aljana ci dërëjey Seyduna Muhammad ñu ngi koy jaale ay mboqam yépp di leen ko mastawu aussi